di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu sàmm di ko ñaan mu boole ñu taxawu nangul ñu suñu jaamu yàlla yépp jéggal ñu suñuy njuumte ndax doomu aadama ñaar yooyu lay mën a def ndax li muy nit moo tax bu dee malaayika moom déggal boroomam rek lay def du ko du du ko du du ko du ko mooy mukk ndax noonu lañ ko binde nin nag day def ak topp di def ay njuumte moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon nit ñëpp ay juum waaye ku du ki ci ñiy juum mooy ki nga xam ne bu juumee ba noppi day jégglu boroomam kon nag ñu jégglu suñu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy yor njéggal yàlla nañu boole jéggal waaye jéggalante ci suñu biir ci li nga xam ne mooy dox ci suñu diggante ndax am na yoo xam ne borom bi moom da koy jéggale te li dox digganteem ak jaam ñi jafewut waaye am na yuy dox ci suñ biir yoo xamante ne ni mat naa bàyyi xel lool ndax mën naa indi ab coono ëllëg yowmal xiyam mën naa indi lit kim dox sa digganteeg moom ab coono fii ci àdduna te loolu dafa bari lool loo xam ne daf ñuy gaar amaana nit mën a góorgóorlu lool ci jaamu yàlla waaye góor góorlu ba nit ñu mucc ci làmmiñam wala ñu mucc ci ay loxoom wala ñu mucc ci moom jafe lool moom daal da lay mujj jaaxal rek lan moo xew xam naa bu ñu noppee ci suñu tombi waxtaan yi ñu dellu siwaat ci àq yi dox ci suñu diggante donte ndëga ni si daaw rek ñi ngi doon waxtaane àq dëkkandoo ak yi nga xam ne moo ci aju waaye mbir la yooyu dañuy dem ak di ci dellu rek ak di ko fàttalante ndax day bokk ci li nga xam ne mooy tax ñu mën a mucc yal nañu mucc ku bëgg a mucc nag da ngay fexe ba nit ñu mucc ci yow nga ñaan borom bi musalaate mu musal la ndax ba ñuy wax lor dañoo wax ne bul lore waaye nag bul waaye gis nga ko bul lore lañ njëkke bul lore googu dafa doon loo xam dañ ciy bàyyi xel bu baax ki wax ne dafa bëgg yàlla suturaal ko moom ci boppam day suturaal nit ñi yi agsi ci moom tam war ko suturaal da koy suturaal da koy jéem a taxawee kemtilaayal kattanam ci taxaw bi nga xam ne moo gën a maandu ci bu yëf doxee ba agsi ci moom waaye nag looloo koy dimbali ci borom bi suturaal ko loolu nag jamono yële la woon waaye suñu jamono ji moom ci jamono yi doy la bokk te du jëmmi jamono ji waaye ñun ñi dëkkee jamono ji la ñun la rek ndax su fekkee ci internet bi la vidéo bu ñu tiitre lu gën a garaaw ci luy xotti sutura wala luy feeñali ayib moom la ñu gën a songu ci bës ko bësu xool bu dee am audio maanaam ak ndéggat moom la ñuy gën a bàyyi xel ci wàllu déglu yooyu nag bu demee noonu day mel ni nit ki day jekki-jekki léeg-léeg mu rëcc ci lëgg-lëgg yooyu dégluwaat boppam laaj ko man la kan ak fan laa nekk daa mel ne waxtaan yi loolu rek daa war a bokk ci li nga xam ne moom lay jariñ di ko jariñ ñi nga xam ne ñoo koy déglu war koo jariñ ñi nga xam ne ñooy wax ndax ñiy wax it gannaaw du ñu ñu yàlla yónni woon te ci biir nit ñi la dugg buñ noppee te mën naa am li nit ñi di def yu ci baree bari ba ñaan moytu leen ko ñu ne ca bu boobaa it ñoom it li ñuy jël léeg-léeg làmp bi wëlbati ko mu jëm si ci seen kaw wala fañ niital gaa yi ñu ànd jëm fa lu ko mooy nag taal làmp bëccëg lay doon di niital ñoo xamante ne jant baa ngi leen di niital amul solo mbokk yi maa ngi woon ci dundug yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mënuñu ko wax ba mu jeex waaye niñ koy waxee mën nay wuute saa su nekk kenn ku nekk ak boor ba nga xam ne moom la koy jële moo tax ma doore woon ci fi nga xam ne fi la ko borom bi teg subhanahu wa taala ba agsi ci ni mu dogoo ci layal ko yi nga xam ne moom lañ ko tuumaal yépp bañam yeeg noonam yi teg ko ay baat borom bi taxaw ne ko maa koy fajal maa lay tontul maa anta bi nixmati rabbika bi majnun lii du waxi jabarkat lii du waxi taaxuraan kat maanaam fu ñu waxee ne yonent bi moo def nangam rek wax ko nangam nangam suñu borom mooy taxaw ñëw tontul ko bañ waxee ne yonent bi moo sàcc mbàjj mi allahu akbar maanaam am mbàjj mu réer ñu ne yonent bee ko sàcc xanaa nit ñi nag lu ñu waxati nit mu war koo mën a nangu nga naan man kilifa laa ñu may jiiñ nangam yonent bi borom bi daa wax ne wa ma kaana li nabiyin an yaqul la wa man yaxlul yati bi maa xalla yowma alxiyaama suñ borom ne jaaduwut waxut na yonent bi sàcc ko de waaye dafa wax ne yellut ci koo xam ne ab yonent la muy sàcc moom du sàcc sori na loolu fi mu jaar man <laughs> fi mu jaar ak man ak fi ma jaar moom bu ngeen ko xamoon du ngeen ko jiñ ay mbàjji moom bëtam ëpp na loolu waaw léegi nit di jiñ nit loo xamante ne yow bi nga koy jiñ maanaam yàlla xam na ne sori na foofu léeg-léeg sax mu yàq ay diggante ci ab barabi liggéeyukaay léeg mu yàq ay xaritoo léeg mu coupé sax vitesse su nit mu coupé vitesse su mi ngi mel ne tey boo toogoon ci ab jotaay ñu jékki-jékki naan nangam dafee réer nangam dafee réer boo doon ànd ak nit sax te léeg-léeg mu naan damaa réer le nangam damaa réer le nangam dañ maa jëlal nangam dañ maa jëlal nangam te nga jege ko te defuñu benn effort boo xam ne ci wax ja sax da ca gis sa bopp day bokk ci li nga xamante ne nii day méttee méttee méttee méttee diis a diis a diis a diis yàlla nag ko dul bàyyi muy jàll diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi ma àndaloon di ko dul bàyyi muy jàll diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñim àndaloon moo tax bañ waxee rek mu ne leen ab yonent moom sori na loolu ab yonent sori na loolu am na koo xamante ne ku ko jiiñ ak sàcc nitewoo ndax daa war a weesale loolu boppam waaye am na ciir boo xam ne ku ko yàlla jox ba noppi ngay continuer di sàcc itam nitewoo mhm. maanaam tey bu fekkente ne dangaa góorgóorlu bi ngay jàng am ñoo doon jàngandool mën naa am sax diplôme yi nga am ñoo la njëkk am nga ñëw amub liggéey ci seen kaw léeg-léeg ñu def la ministre wala ñu def la directeur wala ñu def la président wala ñu def la am nangam jël lu ñëpp bokk jox la ko nga wëlbati ko sàcc ko yëgoo li la yàlla defal parce que baat bi nag baatu sàcc la de biñ ko tubaab biñ ko tubaabee ak oyofal doos bi ci la ñuy wax mu néeg mu def ay nu mu tuddati yooyu baat ñi jëfandikoo yëpp waaye baat bi mooy mu këpp kees ga rek sàcc ko kilifa du sàcc yàlla nee na yëllut ci ab yonent muy sàcc moo tax moom sàccuti mbàjj wa man yaxlul yati bi maa xalla yowmal xiyaama yàlla nee na ku fi sàcc dara la nga sàcc da nga ko indi yowmal xiyaama moom la Oustaz Alioune Sall doon firi ca suuf sax ne kuñ fi ku fi jël ñaari mètre suufi nit wala cinquante centimètres danañ ko gas ba fa suuf yam ñu def ko ci saaku yen la ko kon nag asama ku jël ay hectare wala ku jël terrain jàmbur wala ku jël nangam wa man yaxlul yati bi maa xalla yowmal xiyaama nga xam ne ku sàccu béy da nga yenu bay muy mbee ku sàcc ginaar di nga ko indi ku sàcc eh, ay dàll da nga ko indi lu waaye sàcc rek da nga ko yenu indi yàlla nag ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam sori na loolu sallallahu alayhi wa sallam ñu déggee ci lu bari ndax moom dañ ñu ko yónnee ngir ñu roy ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko yónnee ngir ñu roy ko ngir ñu roy ko royu topp ko topp jëmm waaye topp ay jëf yim feeñal ci dundam gi ci ñaari xaaj yi dundam gi xaaju wala ñett xaaj bi nga xam ne mooy xaaju nit te muy lu nit man te du jagleeg ab yonent loolu dafa war ab jaam mu taxaw taxawaayu roy ko ci maanaam duna yonent bi rek moo ko doon def moom la waroon man wàcc na ma déedéet waaye nag yow itam dangaa am yittey roy ko bu baax a baax a baax a baax ci taxawee lépp loo xamante ne nii mooy ak dundam loolu mooy sunna baatu sunna bi ñu lay wax nga di ko dégg saa su nekk daa bokk ci li muy tekki mooy aw yoon aw yoon yoon wan yoon wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yoon wan mooy ni mu doon lekke nga roye ko ci noonu yoon wan yoon ni mu doon naane ndax càmmoñ la doon naane wala ndeyjoor yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan la daan dëkke ak ay soxnaam yonent bi alayhi salaatu nan la meloon ak ñim àndaloon yonent bi alayhi salaatu nan la meloon ak ñim yilifoon nga xam ne foofu li fi nekk kenn xamul lan la am na koo xam ne jànqam bi ci kër gi rek ko nar a yóbbu sawara fi mu ne te yóbbu ko ndax daa am ay àq yu baree baree baree baree bari yu mu war a taxawee ci jànq bi te taxawee ko léeg-léeg nag nga dem ci kër it fekk jànq boo xamante ne dañ koo def ne doom waaye mu taxaw ca kaw bopp ña ko def rek waaw nga xam ne kër ga nañ ma baal moo koy jaxase mooy fénqale yaay yaag doom ya mooy fénqale yaay yaag sëfóor ya moom daal eh, ma nga ca kër ga rek nekk fanam fa nekke ñaar yëpp am koo xam ne ña ngi ko sàggane lool ba teguñ ko fenn amul heure xëy amul heure wàcc boo moytu dañ koy ber ci lekk maanaam yu nitoo di ku yu ne ñu di ko def yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañ ko roy ci loolu ka doon liggéey ca këram muy anas nee na def naa fa lu mat fukki at yonent bi mosumaa wax lu tax nga def lii mosumaa wax lu tax defoo lii tax naa kuy liggéey loo nit léeg-léeg da nga ko ne waa nangam li nga waroon def moom lu tax defoo ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax daanul wax loolu allahu akbar comportement wala jikko ji nga xamante ne moom la yonent bi amoon ci melokaan ci doxin te loolu mu ne nit laa ne yéen door koo mën a def dafa jaadu képp koo xam ne da wax ne taalibeem la taalibeem nga nga di ko ci roy fa nga nekk ba ku gis ne la gongo mooy taatu rasul sallallahu alayhi wa sallam topp ko kon yonent bi dañ koy topp roy gi day ànd topp topp mooy dëgg-dëggi roy waaye roy mooy dëgg-dëggi topp ñoom ñaar benn bu nekk day dëggal moroomam maanaam topp mooy li yonent bi digle ne nañ ko def saa yoo ca àggee rek amatoo waaw nangam cest à naa xaar naa def nii déedéet day daal di nekk sa yitte nga xëy ca lu mu wax ne bu ko kenn jege kenn dootula la ca topp roy mooy luñ wax ne yonent bi da ko daan def wala lu luñ la wax ne la diine ji daa wax nañ ko def nga nu ko yonent bi daan defee ñu wax la ko nga defee ko noonu sallallahu alayhi wa sallam ndax boroom bi moo ne bu ngeen bëggee ma bëgg leen topp leen ko yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen ma suñ boroom dana leen bëgg bëgg gi war te dana leen baal seeni bàkkaar ndax moom ab baalekat la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu war koo topp kon ci ni mu doon lekke topp ko ci ni mu doon naane <laughs> waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu roy ko ci nam doon nelawe bu yeewoo nan la daan def roy ko ci nim doon jaamoo boroomam roy ko ci teggin yam amoon roy ko ci jikkoom ya nga xam ne dafa rafetoon roy ko ci bépp jëf boo xamante ne nii nit ki mën na ko cee roy loolu waru cee am lenn lu muy xaar lu dul rek xëy laxasaayu teg tànkam fa ko yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon loolu mooy tax mu àgg jof-jof goo xamante ne nii jof rafet lay doon al iqtidaahu bihi sallallahu alayhi wa sallam fil axlaax kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko war a roy ci jikko ndax moom mooy ki nga xam ne moo gën a rafet ci nit ñi jikko sallallahu alayhi wa sallam suñ borom moo ko moo ko may ba noppi wax ñu ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim borom bi nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam jikko moom jikko yu kawe nga yor maanaam jikko kenn gënu la ko rafet la yaa ngi ca njobbaxtalu jikko yu rafet ya yaa ngi ca kaw a kaw a kaw sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuluqin azim waaye jikko yooyu bi ma ciy njëkk indi mooy jikkoy dëggu jikkoy dëggu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku dëggu la woon walladi jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaika humul muttaquun borom bi nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa ñëw indi dëgg ba noppi dëggal ko waaw kon dafa dëggu mooy sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne moo gën a dëggu nit ñi ci ay wax mësta wax lu du dëgg sallallahu alayhi wa sallam laataa muy wax ne yàllaa ma yónni mësta wax waa Màkka dara ñu dem bam ba mu yàgg ñu naan yii maanaam buy waxtaan fulla ak faayda ak farata dëgg lay wax mësta kas ba wax lu du dëgg mësta tooga ko soppeem ba tax sax mu kaf ba wax loo xam ne amut wala mu toog ko bañam ba wax ba wax loo xam ne amul sallallahu alayhi wa sallam kenn mësu koo xamee wax benn baat boo xam ne du dëgg waaw ci dundam lu jiitu mu naan yàllaa ma yónni ba ni ak dundam jeexee ñu noppi koo gis ci liñ koy waxee moo tax mu ne woon dëggu ak dëgg day yóbbu nit ci mbaax nit bu dëggoo rek tàmbulee baax waaw waxuma ne nga naan da dëggu tax ngay xàppati rek lu nit ñi di nëbbu yaa koy wax amoo kersa boo bëggee wax ni dara ne ko till daal di toog tegale say tànk naan man damaa dëggu déedéet dëggu mooy ngay wax dëgg te bañ a wax lu dul dëgg waaye ci biir wax dëgg nag am na ay degere ak ay waxin yoo xamante ne noonu lañ ciy maslaa sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di dënk ngeen dëggu ndax nena dëgg day yóbbu nit ci mbaax te baax day yóbbu nit aljanna waaw bàyyi fen bàyyi wax lu du dëgg baal leen ma bàyyi wax lu du dëgg dëggu ci euh, ñi nga ñi nga waxanteel dëggu ci ñi nga dig dëggu ci dëggu ci parce que lépp lu nit def ci àdduna nit ki mën na koo bañ a def waaye bu mënee def lu du dëgg wala mu wax lu du dëgg lu ne mën na koo def bu boobaa mën naa wor mën naa jël alali jàmbur mën naa def nangam mën naa def nangam ndax loolu yëpp ñàkk dëggu gi moo ko yóbbee yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mu ne inna sidqa yahdi ilal birri wa inna al birra yahdi ilal jannati nee na dëggu day yóbbu nit ci mbaax baax nag day yóbbu nit aljanna allahu akbar te nee na nit dana doon ku dëggu di góorgóorlu ci dëggu parce que da nga ciy góorgóorlu rek di ci yar sa bopp ba mujj mu doon koo xamante ne ab siddiix lay doon siddiix mooy koo xam ne mënatut a def lu dul dëgg nga xam ne ñaan ah diw de moom daa ñàkki caaxaan allahu akbar foo ko déggee rek tàmbali ngaa baax ñàkki caaxaan nga xam ne maanaam boo doon kaf dëgg ngay wax lu mën di doon booy wax dëgg sax doo ko tey dëgg daal yow ci nga nekk looloo baax nee na maa ngi leen di moytandikuloo ak ñàkk dëggu ak ñàkk dëggu ak ñàkk dëggu yóbbu nit ci doon ab kàccoor waaw fen baat bi noonu lañ koy waxee ci euh, waxin wi waaye day yóbbu nit ci mu doon ab kàccoor kàccoor mooy ku baaxut koo xamante ne day def ay bon bon ba noppi te du ko nëbbu te nag ak mbon day yóbbu nit sawara te nit du dañ nag di wax lu du dëgg di wax lu du dëgg di wax lu lu dëgg ba mujj doon koo xamante ne nii kazzab lay doon maanaam dootu mën a tee wax dëgg waaw nga xam ne saa su ne day wax lu du dëgg ba pare door a wax dama lay nax nit koo xam ne loo wax dañ naan la waatal kenn du la gëm yooyu nga xam ne moo xew boo waxee pare ñun la waatal nga waat ñi door laa gëm parce que yow boo waatut kenn du la gëm ku la ne waatal bañal parce que nee ko man li may wax dëgg la soxlawut may waat ngir nga di ma gëm waaye loo ñun la giñal nga door a giñ wala ñun la déedéet kay nga door nga door a tawkiit jëru ko yow booy kaf waxal dëgg lu ko mooy da nga fiy wax lu du dëgg ba mujj doon waxkatu lu du dëgg nga xam ne doo mën a tëb tëb wax dëgg waaw buñ la nee ana diw mi ngi fi danga naan déedéet nekku fi de te mi ngi fi ba kooku dem nga ne koy <laughs> dama lay nax rek naxoo ko da ngaa wax lu du dëgg rek waaw da ngay dem bërëb sàngam nga ne déedéet de dem ma de ba mu jóg nga door a jóg ne ko a ah, dama lay nax rek maanaam mënoo wax yow directement loo xam ne dëgg la faaw da ngay wax lu du dëgg ba noppi door a wëri dëgg gi door a indi kazab waaw mënatoo wax dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom daf ñu ko royloo kon ci jikko jooju nga xam ne mooy jikkoy dëgg dëggu man ak yéen nañu jël jikko jooju def ko muy suñ laxasaay nga daal di tàmbulee xool ni ngay noppaloo ci penc mi waaw nga xool ni ngay parce que di songaleeg di dugal ak a génn ak a ràbbale daf lay dafa mel ne dafay sonalaate dafa mel ne dafay sonalaate hmm. bu ñaareel bi ci jikko yi nga xam ne moom la ñu indi ngir ñu roy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy jikkoy muñ jikkoy muñ sabruhu sallallahu alayhi wa sallam ku muñoon la waaw muñ nit ki tegoo metti ci ay metti metti ak ay coona waaw ak ay coona léeg dañ la koy lor ay nit la koy teg léeg-léeg jamono moo la koy teg waaw waaye ti bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon muñ te borom bi subxanahu wa taala daa bëgg ñu roy ko ci loolu ca alquran sax da koo wax ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxzan alayhim wala takku fii dayqin mimma yamkurun mimma yamkurun muñal muñal te sa muñ gi na yàlla rek tax waaw bul tiit bul tiit bu dara bu metti yi tegaloo sa kaw ba tax ngay énervé wala ngay tiit wala ngay jaaxle waaw bul am xat-xat xat-xatu dënnu waaw ci yi nga xamante ne mooy pexe yi nga xam ne mooy tegu sa kaw bàyyil xel bàyyil xel sa borom subhanahu wa taala rek te nga xoolal xoolal laxasaay googu lambaay googu nga xamante ne takkaayul góor yàlla dëgg la góor yàlla dëgg la waaw maanaam muñ ñàkk a mën muñ mooy tax boo demee ci sëy sëy yu bare bari di gaaw a tas mën naa doon ci ku góor ki mën naa doon ku ci ku jigéen ki waaye bagage yi muñ bu manqué muñalante day manqué te muñalante daa bokk ci lii téye ab ànd ngir ànd bi mën a dox moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom wax ko suñ borom jàngal ñu dundam ji waaye mu doon koo xam ne ku man a muñ la xoolal ko waa màkk def te mësta xusi nit waaw mu nekk màkk lebal leen njekk bokk ci dëkk bi ay maamam bokk ci sang yi mu juddu juddin wu rafet am tur wu rafet ñu seddal ko jikko yu rafet mu xëy ne yàllaa ma yónni ñu weddi ñoom dogalu yàlla bi lu ne ñu teg ko te mësta wax un mësta fayu kenn mësta gis koo xam ne dañ ni daa waxoon yonent bi dara lu metti yonent bi jàpp ko bis poñe ko ci ruq ne ko tey xam nga ne jekku naa la danaa def nangam nangam wala ku mas a mën a dimbali fàttaliku la mu ko defoon démb tax dimbaliwu ko tey mësta toog di jàmbat metti metti duñ ko teg lim daan wax mooy muñ leen te moom ci boppam muñ la nekke woon ba borom bi subhaanahu wa taala indil ko lim ko indil lépp te nag lu ne teg nañ ko ko gis nga loo fi wax naan dalaa dal ci àdduna ba tax nga naan loolu mënuma koo muñ xëy suba laxasaayu yàlla ne la muñ gi lim lay jural moo gën fuuf boo demee fayu ji fayu gi lim lay jural waaw mën ngaa fayu nag bu la neexee ndax yàlla ne na kuñ tooñ man ngaa fayu lu toll ne liñ la tooñ waaye boo baalee te muñ moo ëpp fuuf aw yiw waaw boo baalee te muñ moo ëpp fuuf aw yiw waaye diw lim ma wax dana xam ne maa ngi man la denc ko di xaar bis léeg sax mu jaral nit mu jóg dem cib sëriñ léeg mu jaral nit mu jóg dem cib soppeem wala xaritam bu mu xamanteeloon di ko yàq maanaam waa ji yow teelaa nelaw nar yàq sa dund gi ñàkk muñ donga la ko teg nit jërut loolu nit nit warulaa jaral loolu was wasbir wama sabruka illa billah muñal waaw muñal te sa muñ gi na yàlla rek tax waaw muñ rek buñ ci doon waxtaan ci jikkoy muñ mu doy sëkk waaye dama la koy junjal ci muñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw bu ko defee nga roy ko ci loolu muñ muñu ab jirim boo xamante ne daa ñàkk yaay ñàkk baay nattu la te dafa metti waaye nga muñ ko ba doo jàmbat laxasaayu ci penc mi ba xëy yàlla yónni la bàyyi fi ñi seen ndey di dund ak ñi seen baay di dund muñ nga muñ ak ñàkk ba këram daan nañ toog ñetti weer cin du fa tàkk waaye mu muña muña muña muñ ba kenn musu koo dégg muy ñaanaatu wala muy def luñ koy xeebe wala muy wayaan sallallahu alayhi wa sallam muñ nag ci sori sab dëkk waaw màkk gi mu dëkk ñu bundu xatal ko ba mu buubi bagaasam dem madina te ba muy génn màkk da ko wax ne ko yaa ma gënal ci dëkk yi sàllaaw buñ ma la génnewul woon du ma génn mukk waaye teewul mu muñ sori waay googu muñ njabootam koo jur bu demee bay dëgër faatu ba bi muy faatu benn doom la fi bàyyi buy dund sallallahu alayhi wa kon kooku muñ na muñ ko rafet waaye muñ àdduna ak koom-koomi àdduna yeeg yi nga xamante ne moo nekk ci àdduna lépp itam mu ànd muñ ko sallallahu alayhi wa sallam waaye yii mu jaar nii te yàlla ne ko yaa ma gënal ci kaw suuf ba ma yónni la njaw mi koy yow yaay kan nag ba dara wërta dal ci sa kaw lu metti loo xamante ne war ngaa dogu war ngaa taxaw temm ngir muñ ko wasbir wa ma sabruka illa billah fa naadaahu llah fi ulyaihi fa qaala lahu wasbir wa ma sabruka illa billah wala tadan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkuruun suñ borom woo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci asamaan yu kawe ya allahu akbar waaw bi di am muñ ba muñ fu dara nekkut waaye waaye nañ ko jàng te roy ko ci loolu jafe-jafe day yokk jom day yokk jom waaye du indi yaafuus moo tax bul gëm ne da ngaa échec ndax yow li nit ñi am amoo wala kàddu yi la dafa diis déedéet boo taxawee di boole rek matoo li nga doon waaw da ta laxasaayu te ne fii sama fan a ngi def ci kaw suuf lépp luy tax ma am ngërëmul borom bi dinaa ko wut lépp luy tax sama àdduna jag dinaa ko wut yow loolu mooy sa wàll li ci def ci loxol borom bi la nekk. xëyal nag ci xëyin woowu fu mu yem neex waaw da ngay xëy ci xëyin woowu di ko defee noonu fu mu yem neex sallallahu alayhi wa sallam kon ñaari jikkoo ngi noonu benn bi mooy jikkoy dëggu jikkoy dëggu na nga dëggu ba boo joxee ni rendez bu ko foosewut bu ko foose na nga dëggu ba loo nit bu ko firiwut bul ko firi na nga dëggu ba bul animé jotaay yi tax ngay wax lu du dëgg na nga dëggu ba bul wor na nga dëggu ba bul fen na nga dëggu ba boo lebee wax nit ne ko bi sàngam danaa jaar bi sàngam na nga jaar boo amee ak boo amul dëggu jikko la joo xamante ne fépp la war a nekk ci lépp lu mën di doon ndax day tax jamono mën a mën a jag day tax nit ñi duñ ne la non c'est-à-dire wala diw dafa dégg jamono wala dafa am diplomatie te diplomatie bu fekkente ne mooy wax lu dul dëgg rek xaw ma man diplomatie ban njariñ la am ci diine ak jikko yu rafet su fekkee lijjantikat wala nit ku intelligent ña eh, diw dafa muus mooy wax lu dul dëgg ak triandee ka waga jaane ka këppi kees kon muus moom amul njariñ nelaw ko gën muus dëgg mooy xam li jaadu fa mu war a tegu nga teg ko fa loolu mooy ak muus kon jikkooy dëggu bi ko ñaareel mooy jikkooy muñ yàlla nañ ko yàlla boole defal bu ñu yàlla may ñu dund ba suba yàlla ñu may ba ñu dund ba suba te weesu ko daañu indiwaat yeneen jikkoo ci jikkooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fàttali ko ndax ñu ànd ñun ñëpp royaat ko ci ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu sàmm ñu di ko ñaan mu sàmmu leen te boole ñu nangul defal ñu jàmmi àdduna defal ñu jàmmi alaxira defal ñu suturas àdduna defal ñu suturas alaxira ñoo ngi bég lool ci ni ngeen di toppe ak ñun jotaay bi di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Oustaz Alioune Sall moom la ñu bàyyee toogu bi mu ànd ak ñun ci waxtaani fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu sàmm ñaan ko mu defal ñu jàmmi àdduna ak jàmme alaxira allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalihi seen bokk si Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu